di ñaanal boppam di ñaanal ay ñoom ak ak yàlla yépp muy xasida bu siiw ñu koy jàng lu bare bëri mu astantirul xayra min rabbi bi laa taabi wala musaiba xam nga ni tabarakallah xëy na sax rawatina li jëmi baat bu njëkk bi tegtale mi astantir ak bu duggee ba ci biir xasida bi ay ibaada ba ci bayt yi topp noonu euh, xëy na bu baax donte gisuñ euh, fi ñu toll nii sharha bi ba xam ki ko am na lu wax ci contexte bi xasidi bi ñëwee ci ban xew-xew la ko boromam taalifee waaye wane na rek ci jamono nawet la te boobu xëy na tolloon na foo xam si ni bekkor amoon na jaf xaw jafe mbay mi bëgg yàqool yooyu maanaam mu mu gëj a taw lool daal loolu feeñ na ci bu baax a baax waaye tamit xëy na laa mën ak yeneen mbir tamit moo tax ñaan gi tamit ñaan gu yaatu yaatu la xasida bu bu yéeme la xasida jëddaaba la boo ko dee liir da nga koy bëgg rek di ko saxoo di ko jàng bët bu set du ko bëgg sax di di di gëj a jàng jekkaayu xasida bi ci wàllu làkku arab kéemaan la tabarakallah mufradaat yi ak taraakib ak awzaani ak iqan bu neex bi am ak maanaa yi mu ci ñaan yàlla subhanahu wa taala xamante ni ba ko dee jàng moom waxal la sa soxla lépp tubaabu ci dara tabarakallah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim يا همة الشيخ يدري لنا بهذا المحضر والتعاطف بظهر تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي قصيدي بين تيم تيم استمتر الخير من ربي بلا تعاب ولا مصائب في اهلي ولا بدني نون دوري من قصيده بي موي نونيا جي بسيط من اقاب يلا ما شاء الله راوتي نك رفتايو كلمه دي بات يي اك ام سي والو لاكو عرب دال والو تراكيب عرب بوكو دي جانغ ام سي والو kéemaan yàlla la ci anam yi ñuy xayma wéy wax wu rafet ci arab lool macha allah waaye tamit taaram ci wàllu maxtaba bi maanaa bi la ci borom di sàkku ñaan di mu jékkee ci wàllu tadarru ak ibtihaal tabarakallah niñ ko niñ ko rafetalee moom ñaan yi mu làmboo bëgg-bëgg jaam yépp xanaa boo ko dee jàng da ngay bi ne waxal na waxal na la yow sax yow sa soxla yépp bu dee yow da ngay bëgg sax boo ko dee jàng doo gëj di jàng mukk mais xasida bu barki barki ñu miin di ko jàng nga xam ne xëy na boromam ci ci ron ab azma ab crise bu métti la ko bindee ndax feeñ na ci biir xasida bu baax ci baatu astamtir bu njëkk wax ak yeneen bayit yi si kanam ay axsin barak min wax yin mu jeex muy na rek ba mu koy bind booba jamono jo jafe jamono jafe woon na crise amoon na rawatina ci wàllu baykat yeeg dañuy bay xëy na gëj naa taw ba mbay mi bëgg yàqoo li mel noonu bañ soxla ndox façon yi mel noonu xaw na cee feeñ waaye li mu am tamit ëpp na loolu ëpp ëpp na loolu lool lool sax tabarakallah moom lañ doon nañ ko jéemantu tey firi ko mu gën a tasaaroo incha allah ci mbokk yi astamtirul xayra min rabbi bila taabin wala masaiba fi ahlin wala badani man astamtir maa ngi ñaan yàlla maa ngi tawlu alxayra lu baax yiw wala istimtaar la jëfandikoo man astadirul xayra lay teg maanaam maa ngi ñaan yàlla mu wàccee yiw mu wàcceel ñu mu tawal ñu taw xayr ndaxte mataru sawi am na kon ko akwaan tuddee waaye matarul xayr tamit am na tabarakallah yalla yalla defal ñu nak matul khair lay ñaan yalla yalla waccel ñu tawb yu al khairu di kalima jamia ci ci arab manam bad bo xamanteni ni dafa ñu ci al kalimatul jamia bad bat bo xamanteni ni dafa dajale ah, danaka lu ñu lay mëna tekki lu ne loolu lañ tuddee al kalimatul jamia wala kan nga al khairu bako waxe rek lepp lu positif rek khairul arab da ko tuddee khair bo ne wir arab da ko khairu boo ne jàmm xayr boo ne alal comme alxuraan nga wax intaraka xayra intaraka xayra ni wasiyati bil waalidayni wal aqrabiin gis nga foofu alal sax day tekk foofu wa innahu li xubbil xayri shadiid baat bi la boo xam ne kalima jaamia la mu ne maa ngi ñaan yàlla na xayru lépp lu baax maa ngi koy sàkku min rabbi ci sama borom bi laa tax bi ci mu ànd ak benn ci yoon yàlla na yàlla may ñu xayru yàlla te yàlla may gi ñu koy may mu ànd ak jàppandi lool buñ buñ sonn wala masaayib bu mu ay musiba ay catastrophe fii ahalin loolu bu mu nekk ci ak njaboot wala bari mu nekk si aw yaram bu dee loolu la bu dee ko bind tamit fii ahali wala badani mooy loolu yàlla bu mu dal ci sama yaram sama njaboot ak sama jaram ahalu mooy njabootu nit ki ci soxna yaag doom yaag façon yooyu yëpp mooy ahalu ma ñaan yàlla jàmm yu ñuy dikkal te mu ànd coono bu ñu yàlla mosul ci musiba yi. suñu njaboot musil musil musiba yi suñu yaram fallahu yaalamu min doofi wa faqri yadi ma kalla anhu lisaanul xaadiqi lasini mu ne fallahu yaalamu yàlla de moo xam min doofi ci sama lot ni ma feebule doof ak doof ni ma ñàkkee kàttan ni ma ñàkkee man-man wa faqri yadi ak sama ñàkkuk loxo xam ne yëruma dara jaam laa bu xeebu dara mënuma ko aw ma pexe aw ma aw ma aw ma sabablu lenn fu mu mën a jaar li ci yàlla xam yàlla dooy na li ci yàlla xam doy na màkkal la loo xam ne lott na sax am na ci mën ko tudd lisaanul xaadiq làmmiñ ku muus ku ñaw ku mën a digg arab àllasini ko fasaa àllasini tabarakallah mu faral mooy ma lasan li ma ne li ma làmboo ci ci néew doole ci lott ci feebal li ma làmboo ci ñàkk muy toroxlu diggante ma boromam sukk su mekku ci lépp luy daraja ak am am ak pexet jaam ne loolu li ma ci làmboo yàlla rek moo xam ci anam anam boo xamante ne nii nit sax mënu koo wax waaw ki dàq wax mën na def ay reportage mën a wax wax bu mën làkk arab boo ko waxoon sax pour mu expliquer man sama doye di ak sama ñàkk sax du ko mën ak ak li mu mën a wax yëpp du ko mën sës naa ci ci ci ci wàllu woowu kon nag rabbi arsil sahaiba min afin wa min minanin tajlu biha kulla ma qad kaana min darni kon arsil yàlla nga sëmbërtal yal na nga wàcce yursil samaa aleykum midraara yal na nga sëmbatal yàlla man wàcce wàcce ba am doole mu sotteeku saxaay ba ay xiin ay taw yow yàlla yal nga wàcce ay taw min afin ci sa njéggal rab bi ay taw njéggal afu baat bu baat bu yéeme la moom tamit comme ni ma waxee sànq ci xayru waaw loo xam day effacé ba kenn du du gis benn taas wala benn benn jeexital lii fii la jaaroon loolu mooy loolu afu la bokk waaw bu ñu afa tariqu masalan mooy yoon yi dafa faar ba kenn xamatu sax ni fi yoon waaw bu ne yàlla def defal na jaam bi afu mooy da ko grâce ba nga xamante ne nii dara destu fa dara la ñu toppee jaam bi wala dossier bi foo ko boo ko doon xool du fi mën a gis doo doo doo ko fa kii moo tax yàlla suñu tudd afu moo tax yéen di waxoon surtout na Aïcha ne que euh, ba mu koy laaj laytu qadri moom bu yàlla defal ma tomeel moom laa ciy ñaan moo ko del wax rek ne allahumma innaka afuwun karim innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu tabarakallah te afu bu yàlla wàccee si jaam bi da koy wàccee ci ay feebar yoo xamante ni feebar yu diis a diis en mën si dikkal jaam bi bu feebar ba feebar yooyu raaf ba mel ni kii dootul moo feebaroon bu dee ñàkk mu dem ba mel ni kii nekkul moo ñàkkoon bu doon ak texir mu dem mel loolu lépp ci mën a ci ñu xam dayee baat yi ci xam loolu bu baax afu yal na yàlla wàccee nag ay taw yi afu muy mel ni ak ay xewal yàlla di wàccee comme ni mu ko waxee moom subhanahu wa taala ci barakaat mina sama yi mu wax wa yunazzilakum min as-samaa'i rizqan façon yi mel noonu yëpp yursilu sama aleykum midraara yooyu di wàcc ci asamaan yëpp yàlla na yàlla def ko mu ay taw yoo xam day wàcc yoo xam ne tajlu bu ñëwee euh, kullama day fomp euh, ci ci moom yàlla ci euh, ñoom kii dañuy fomp kullama karkaan lépp ko noonu mos na fee jaar rek mu dara nii ci tër tër ci tilim tilim tilim mu feebar tilim mu ñàkk tilim tilimu bàkkaar bu ko defee yàlla wàcc ay tool yoo xamante ni bu ñëwee rek ñam xewel yoy lépp lo xamanteni ni rek mësna am ci walu wonon da ci fare taj lu bi kullu ma xëy kat kan min darani ajil ajjil abdin shafahu shajal min tulima qadahu al ahwa bir rasani no ajil yàlla nga gawal yow yàlla maanaam lu irsan la limay wax ni yàlla yàlla nga gawal ixaasata abdin qatil abdi am nga sowe ko ixaasa shafahu bo xamne sëpp na ko shajanun njàqade tiitaange ak jaxle tim nako diko muccu di jeexal diko ko jeexal jàmm kon mu ci mu ci liñ tuddé urgent kon yalla yalla nga gawal ak xetilem waaw yalla nga yalla nga gaaw gu yalla bu mu yéex te loolu nak liko ko du dara min tolima ngir yagul xam xaadu woo nako rek al ahwaaw bànneex bir rasan ci tark wala fi ñuy tark lab gi manam buum gi liko dal ni yeb rabbi mom ngir ko reconnaître mom jambi ne mom tek bopam waaw mom mo foye bopam baye bànneex yi di ko foye fu fu neex bànneex yi yóbbu ko bànneex dal ñu ko yow ak bum dal diko ko di num mu leen neexee mu and ak ñom ci loola loola looloon ba tay nak ba tay li yeb dal ko mu xey di di jamba rab bi waaye nag lu mu xew rek yalla moy buntu bi fu jaam muntu jaar rek ak lu mu bari bari rek man na sukkaat ci buntu yalla balu ak jéggulu tubaarka ko la non la waxee diggante ak boromam tubaarka yàlla subhanahu wa taala non ñu waxee moom kenn duko jaay Eh, di wax ak moom di ko delloo ci xadaa wa xadaram di ko wan ne ko yàlla li ma mel yow la neex yaa ma ko def donte loolu mooy dëgg waaye da ngay ñaanee comme ni yonent yi ñaanee rabbi inni zalamtu nafsi yàlla maa tooñ sama bopp waaw ñun dañuy wax loolu maa tooñ sama bopp da ngay gis sa waataaratu bi zambi reconnaître naa ne yàlla maa tooñ noonu la ñuy waxee ak yàlla waaye eh, tabarakallaa doo ñëw di jaay yàlla nag ne ko nangam ak nangam. ajjil mataalibahu yàlla yàlla nga gaawee ay càkkute li muy demande yàlla yàlla nga gaaw jox ko ko te lu baax la wastur masaali boobu yàlla nga muur ay sikk-sikkam bi yàlla nga ko suturaal bu sikk yàlla yi gën a màgg yàlla defal lu bokk moo tax ñaan bokk na gën a am solo lool lool te gën a am solo tamit ci tariqa ci ya mooy yaaman azaaral jamil wa sataral qabiih maanaam ñaan bu bari maanaam moom tamit yal yàlla muur ay ayibam ay sikk-sikkam muur ko ko si diggante ma jaam bi nga xamal lu lu baax wak bit mu xaali baxu yalla nga jeng yalla noonam kep kuy xex ak mom yalla diko di contre ak diko ko bañ ak di ko fexeel yàlla nga ko jéng ba ko bu am katan bu meuna a sax bu ay pexem soti fi ko lima zamani jamono yu nek rabbi yalla nga jeng yalla nga jengal jëngal yewul ko ko falaata kii ni la ne yalla yàlla bu ma bàyyi sama bop rabbi yent bi daana ko ñaan lu beuy te wax na doomam sit naa faatama di ñaan yent bi sant na ko ne ñaan lool ya hayya ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ayn ku yàlla bàyyee sa bopp nga sonn nga torox yàlla mooy al mu dëbbir ku yàlla tëbbiral nag sa lépp baax kon yàlla yàlla nekk dafa bëgg yàlla yàlla nekk sama mu dëbbir ki may doxalal di ma xalaatal moom yàlla bu doon yàlla day xalaat di ma orienté waaye yàlla bu mu yàlla wàccee sama bopp bu ko defee nag ma sànk ndaxte nit matul mënul mënul xamul xamul li xew xamul dara bu yàlla bàyyi boppam rek muy organiser boppam rek daram du sotti ko moo tax ma ne falaata ki ne yàlla boo ma bàyyi sama bopp yu yàlla waxoos bi yéen yàlla nga téye sama loxo yalla nga téye sama lox dima doxalal dima orienter lol motax sax ñi def li ñu tuddee saatul si xaar ñu santoon ñi koy def sallallahu alaihi wasallam bu ñu bëggee dugg ci dara comme ñun la xew ci kanam bi dara lañ si xamul bu def ñu jël ñaari rakk wala japp lol lu mel non bu ko ay ñaan ñaan yalla ñi xam ne moom xam la xew ta mo man mu dimbali ñi rek li ñi nek suñu kala li ñi bëgg ko nañ ci da ci am yalla tanal ñu ko tam nek lo xam ne moo gën ci ñun bu dé du du non yalla tër nañu ci lolou yóbbu ñu doxoon moo gën gën moo gën loolu ci saatu istixaara gi yéen saatam joxe tam ñëw ci sahih bukhari xam nañ ko ci wa wafiqani li qafwin waadixa sanani yàlla boo defee sunan yàlla nga ma defal sens yàlla yàlla nga ma yàlla nga ma dëppale may ma sens ma xenc ma topp yoon yoon wu leer bi ma teg sama tànk ci yoon wi loolu la wax ci alhuda almustaqim te alhuda wal asrat mustaqim al jadd annahju sawi wa ala allahi qasdu sabil yàlla yàlla nag dimbale ma man defal ma tawfiq ndax tawfiq nag ma tawfiq ila billah tawfiq yàlla nekk yàlla yàlla defal ma tawfiq defal ma sens ba ma teg sama tànk ci yoonu leer wi xam du ma jàdd yoon wi yàlla waxoon na an hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul as-sabil boobu nag mooy mooy waadihu sanan yàlla yàlla teg ma ma topp ma topp yoonu leer wa as-sanan mooy at-tariq al-waadih mooy yoonu leer moo defee as-sunan mooy jamono sunna yàlla yàlla teg ma ma topp ma xëy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari maanaam yëpp wér na fi donte xëy na as-sanan bi mooy gën a kii maa ngi ko ñaan yàlla nag bi nasril xaq bil xaq li di sharufat bi nasrihi saaratun lil xamsi wal yamani maa ngi ñaan yàlla loolu di di di xeetali ko di di tawassul di jottali ko ci daraja yonent bi bi nasril xaq bil xaq ci daraja yonent yàlla xam ne mooy nasril xaq bil xaq yonent bi nga xam dëgg ci dëgg ci benn ci maanaam yi comme ni ko si na Cheikh firé ci Jawaahir Maani radiyallahu anhu ba mu firi saat faatee xam moo dimbali dëgg dëgg moo dimbale lislaam dimbale alquran mu dimbalee ko bayaanam bu leer bi dimbalee ko sunnam su leer si maa ngi ñaan yàlla ci barke bi yonent boobu noonu yonent bi nga xam ne allazi yonent bi nga ci ak ndimbalam la la fooree maanaam si ak jàppaleem ak nasru mooy jàppale mooy sa sawaanu xizlaan yonent bi si ak jàppaleem ak taxawaayam si la fooree saaratu ay sang arab yi macha allah jullit yi fooree ci gannaaw ba nekkoon ñu ñàkkoon solo posé wuñu woon dara ci àdduna bi waa ñu foor ba seefe sax ba seefe ñu gënoon for ci àdduna mooy Romains yi Byzantins ak Furs yi Perse yi seefaale àdduna yëpp ba dugg Europe Espagne Portugal nga gis doole islam yi ci Andalus Ifriqiya fépp saxaaba yu tedd yooyu xam si ci yonent bi lañ fooree am dara jooju ñu am ba àdduna jox leen cër tabarakallah ba français fu ne di jël seen di fay impôt état état islamique te loolu diir na ay siècle siècle siècle yonent bi xam si moom la fooree nag ay sang li xem si jëm ba ci xems ak yaman tabarakallah dëkk yooyu noonu. ca Sham ak ci Yaman arab yi foo tourné rek doo tudd yàlla dëkk yooyu rek waaye ñëpp ci moom lañ fooree sallallahu alayhi ilahul arsh maa ngi yàlla yal yàlla julli yàlla mi borom arsh te arsh daa rëy moo tax ñu koy yàlla yàlla te yàlla bakk na arsh ci rëyaay bi rabbul arshil azim ci kawe moom arsh moo tiim lépp tiim asamaan yi tiim sëritu muntaha tabarakallah maa ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xam moom mooy borom arsh yàlla na julli moom yàlla عليه كي يونت بي صلى الله عليه وسلم يعني يلف صلاة السلام كي يونت بي يلا نك صلاة السلام كي يونت بي كي يلا في يلا موقع من تولو يلا رك موقع جل جل كي يونت لمي تك يلا رك موقع أين دني واحد دني بعد برني واحد واحد قم دني تمي لوريلا واحد دقي ما نام دني تك يلا موقع تبارك الله ما تمني صلى الله عليه وآله وسلم ما سجن عرشي عن وينه كم ديتون أم بتا بتا هم جيجن قد دعت بخن وانا ساكن بين بتا على فلان يتحوش كاو كير كاو بانكاس غرب kon mooy mooy lu gën a tuuti ci bànqaas kon en général def def xob yi fekk pitax mu góor woo na beneen sàq beneen pitax mu góor pitax mu jigéen ak pitax mu góor taxaw ci bànqaasu garab maanaam day day misaal bi day lay jox beneen taswir beneen suura ci nature bu rafet gis pitax yi taxaw di wëy seen sab yu neex yooyu la tuddee wëy sajon di riime ay baat pitax yi dañuy wëy te noonu la neexee nag yàlla bu leen ndox jege nag jardin yi rafet yooyu bu pitax mi waxee ba daaneel gis beneen pitax mi jug. yëkkati kàddu gi wax nee na feeg loolu mi ngi am yàlla na saatu ak salaam di sax di nekk ci yonent bi te loolu dañ di am ko mu ne أغث عبادك من محن أضر بهم بوابل الفيض مثل العارض الهاتني mu ne axis ibaadaka yàlla nga wallu sa jaam yàlla nga leen xettali min max leen ci bekkoor jafe-jafe dund rawatina ci suuf si ndox ñàkk wàcc loolu lañ tuddee max la adar rabbihim boo xam ne gaañ na leen maanaam lor na leen lool mettital na jaam yi bekkoor boo xam ne am na jafe-jafe dund yàlla nga ci wallu jaam yow yàlla nga walloo leen bi baabi leen fayda ci bëbb guy waame ndox muy sotteeku sotteeku bu baax a baax di waame ñëpp xam ne macha allah. misil enrib mel ni niir atini buy sotteeku mel ni niir bu bari ndox woowu kii mu am ndox buy sotteeku rek rab bi yàlla nga wala jaam yàlla ndox am ndox yàlla ndox wàcc yàlla mu ñaan yàlla yàlla yàlla ndox wàcc ndox bu wàccee gàncax gi daal di dekki mbay mi daal di barke jaam yi kontaan am am am am nañ am nañu wut ci wàllu suuf si moom loolu sax la ñaan mu ne waja'al lahum barakaatin fi basaatinihim yàlla nga leen defal barke seen tool yi barke tamit yàlla ñu ay barke waaw ma sank ci alquran ci ay bob yàlla wax barakaati min asama wala na ahlul quran amana wa taqu wala fatahna alayhim barakaati min asama wal ard yalla yàlla defal len ay barke ci sen tool yi yàlla tabarakallah tool yàlla yàlla yàlla am barke mom dara moom barke rek comme ni ko sëñ bi subhanahu wa taala waxe ci suratul baqara ci mahal habba am badat sab'a sanaabil fi kulli sunbulatin wa habba tanak nag wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu wasi'un alim yàlla na am barke ñu koy bay lum tuuti tuuti mu sakkant bëri man ñu xacc ak seen njaboot tabarakallah loolu macha allah danañ am bu baax a baax gis koo xam ne lam am ci ay toolam mën ci dund ba ba beneen nawet ñëwaat fekkaat fa la daaw la jeexagul te léeg mu si jaay di ci ay soxlaam ak yeneen ak yeneen di ci maye di ci saraxe di ci jox askan lépp loolu barke na loolu kon yal na yàlla def ko ci tool yi wala tub li loon asra bi li suréni fil minen yàlla nga yàlla jafe-jafe bu nekk benn jafe-jafe nga remplacé ko ñaari yomb fi mu neen ci ay te loolu la yàlla dël jaam yi ne moom lay def yàlla subhanahu wa taala wax na saxal na ne jafe-jafe moom lu métti métti yomb-yomb moo koy demee ndax jafe-jafe benn lay doon te yomb-yomb ñaar lay ñaar lay nekk waaw moom la wax surtout surtout charx jël al usru waxee ko benn façon waxin tabarakallah mooy liñ tuddi at ñu jàng balaax ñu koy xam maanaam maarefa bu ñu tëkkaraar ak ak nakira bu ñu tëkkaraar ni ni muy kii maarefa bu ñu ko tëkkaraaree benn la nakira bu ñu ko tëkkaraaree ñaar la waaw innamal usri yusran jafe-jafe bi day ànd ak yomb-yomb waaye indi maam aussi même jafe-jafe bi tamit day ànd yusran di am beneen yomb-yomb ci moo tax yonent bi loolu la firi daan ne na jaam yi bëgg ndaxte lan yaxlibal euh, euh, euh, daan lan yaxlibal yusray ni xasurun waaxi daan ñaari yomb-yomb benn jafe-jafe leen demee mukk kon nañ sant yàlla te bëgg moom yonent bi loolu wax moo tax loolu si yërmande yàlla sama borom la bokk benn jafe-jafe boo gis yàlla compagnie na ko ñaari yomb-yomb yu koy yu koy woyfal moo tax gis en général li ëpp looy dégg ci feebar wér na ngay dégg waaw li ëpp looy dégg ci ay jafe-jafe ñëpp jaam yëpp ku ne dund nga ko sa bopp ku ne fooy mujj mooy yomb-yomb topp na ci waaw loolu moom mu ëpp loolu mooy kaa yi ëpp foofu sax waaw nañ gis nit ku dund lu métti metti métti lakkale na wala yooyu waaye boo fa demaatee fekk macha allah dafa mel ni sax lu da ko jig mu jëlee si geneen changement goo xam nangam. ko feebarul wér dellusiwaat ku nangam nangam lu mu ëpp lu muy am ci ci yeneen ci yeneen façon yi ko nga gis ni kon jafe-jafe moom foog fekk rek ñaari yomb-yomb a ngi ci kawam di ko puus te dana dem moo tax moom loolu la ñaan yàlla yàlla yàlla wàccee jafe bu nekk boo xam koy dund yàlla yàlla teg ci yeneen ñaari yomb-yomb ñu ko ñu ko dominer jëlee ko fi wa sababu fadlika fayaadun taxussu bihi fa fayaafi bi laa man nin wala mihaani wa sababu fadlika sa sotteeku yërmande yàlla sa sa taw ngëneel sa tiraanga lu mooy loo xamante ni dëkk wàññiwul dara waaw lu muy fadlu la te waru la du forcément nga def ko te fadlu sa niiru yërmande yàlla taw mbaax fa yaadum yàlla nekk luy sotteeku maanaam xabar bi bi maanaam incha nekk luy sotteeku sotteeku am doole sotteeku gu am doole taxus bi ba xam dañ ci fotee sax fii fa yaay fii àll yi yaatu yi xam dañ ciy fot. alli alli yaatu yi xam ne dafa àlloon daan na fay fay fii fii fii fayaa fii ma jam fii fiyaa nga xamante ne dañuy gis àll yoo xam ne dañuy doo sax seen garab àll yi ni mu yaatu ak ni mu mënee jël xam ne yàlla ci sotti ba àll yi sax day mujj xat ba du am ba du am espace bu mu jëlee daan daan naa day fot fot mooy comme put gu fot ko doon lekk ba put gi li mu lekk bëri affaire yi sësëlanto ba ba dara mënatul jàll teranga yàlla joo xam day sotteeku ba ba espacé dañ dañ naan fess nañ mën duñu jël da bëgg wax na bari rek bila ma leen loolu bu mu dag mukk man bako ci manam al qaton ajira ghayr mamnun wala mi mexante bu ànd ak ay natt waaw ci natt nak moy yalla di wacc ay xewam te yeguloko wa waaw loolu ci natt la bokk waaye yàlla di wacc ay xewam nga nga am shuhudul minna di gis xewal gi di ko sante yalla di ko jamo te di ko soppi tamit ci lu neex yalla loolu moom tubaarkala kon ñan yalla yalla yalla wacc wàccee teraanga ak taw mbaaxam moom yàlla goo xam day sotteeku ba ñëpp xam ne mat na kenn wax ne na wala tam soroon naasir yi fii kulli mujtamain wala tool ma taxaan mu taxaani wala tam soroon naasir yàlla jàppale képp ku may jàppale sama farandoor képp ku allié ak jàppale yàlla fii kulli mujtamain société bu munti nekk penc man di ma dimbale yàlla yàlla maa ngi ñaan yàlla kooku yàlla nga ko dimbale wala tool yi moom taxaanan yàlla nga farale ak ñàkk fayda ma daama moom taxaani képp ku mu ne daf may utal ak ñàkk fayda dima ma gotti di ma tuutal di ma yàlla yàlla nang ko tek moom tamit lan moma yéen ak limi dox ci man yàlla nang ko sotti ci ko moom tamit yàlla nek ku xeb ku ñak solo ko xam ni du jëm fenn wal takfina fi naa bismika alkaafi axax maa ngi la ñaan yàlla ci tur wi di al kafi tabarakallah tur yàlla la al kafi yàlla wan al qur'an ci baat bi xeyna ñun ci ay ay quelque yon ci al qur'an ci maanaa yu wuute fas yakfikahumullah alaysa allahu bi kaafin innaa kafaynaaka almustahzin façon yi mel noonu ci si baat bi la alkaafi yàlla mi nga xam moom mooy moom mooy baare day firi loolu waaw kan moom mooy baare alxasib waaw moom mooy aar moom moo lay fegal loolu su maanaam almaane al al alxasib kon ma ko waxee léegi raqib façon yooyu maanaam boobu la yor benn côté bi man la ñaan yàlla yàlla nga ma fegal ci sa tur wi di alkaafi waaw wax nga ko wax nga ko yonent bi alayhi salaam bi kaafin abda innaka fi naaka mustahsiin yalla nga ma fegal rëb bi axaxaas dina ko iñan kii wan kon dafa dafa lambok iñan jeme ko ci man borop iñan go xamni yim dina daaw day day day feñal ak nonam kon bañ gi ma bañ ak contre gi ma contre nëbb ko da koy fësal aw yox di ala ihna wala wala mu dum moy doon ala ihna ci kaw ay noone waye wala sax wonu ko waye mu ngi mu ngi nacc xol ba mu ngi nacc ak iñan ak bañal mu ngi dox ak mom gëmm ko ci xolam waaw tourner andak andak and yox di ala ihna wala mu dum moy ci kaw ànd ak am ànd ak noonu yooyu moo def al ihna wa shahna wal bagda ñaari façon noonu yépp yàlla nga yàlla nga ma aral leer bi yàlla nga ma len aral bi yàlla ma fek ba bu njëg ci man wa kaydahu ruddahu fi nahri ma la ñaan sax yàlla plan non boobu rab di teg ay plan jëmale ko ci man yàlla nga ko delloo plan fi nahri ci dëndam bu dee fettali gum tiré pour mu jëm sama dënn yàlla na fetti gum mooy dellusiwaat ci kawam moom jëm ko moom mën ko yéene dina ci ñaani yonent yi la bokk ak ci ñaan yi ñu wàcc sax ci sunna noonu moom deesu ko yërëm tabarakallah kon moom bu la jokkooree la tamit ñaanal ko yàlla rek wa charit bi yàlla na ko dàng ñel yu yàlla yàlla na gërëm ci kaw suuf si ba xam fu mu jëm di wëreelu waaw bu xelam dal maanaam bu xelam dal muy fu nekk rek di tiit xam sa woon du xam sax fu mu jëm mu charit yatiihuna fil ard wa sayiruhum marama asuhumi zamani yàlla na ko mujjil yàlla mu nekk koo xam te nii moom mooy moom mooy kan mooy hadaf fett jamono yi waaw xanaa bu doon bu ay bal la yan kan lañ war a dugg fekk moom la waaw moom mu nekk moom mu nekk objectif bi nga xamante ne nii euh, tabarak objectif bi nga xamante ne nii fett jamono yëpp jamono ay tartaram ay musibaam si kawam la koy sànni moom noon bi sama noon bi yàlla nekk noonu والتفع من بفيوض الشرق شرق أو أوعيته فيض يطم على الحزان والقنن من والتفع من بفيوض الشيخ من يالا نغا فيسال يالا سي ببي سيدي احمد تياني اه سي احمد تياني اي فيضم اك مردم غيجيم غوريغا يالا نغي فيسال يالا او او عيتي سماي سماي ندب جامو يا samay samay bagaan bi samay ndab yàlla na ko duy ba mu fees yàlla na ma ko duy lee ci fayda Cheikh Ahmad Tidiane yi ba mu fees dell waaw sotti sama dënd bi xam-xam yeeg leer yeeg mbaax yeeg futuhaat yeeg fuyudaat yeeg minax yeeg barakallah mawaahib yeeg manaqib yeeg darajaat yeeg yëpp yàlla na sotteeku ba fees fayda ma nekk ak bët bu sottee gu am doole ko xam yettim mu wala xisaan day day pengat day yëkkati ko sax ci kaw ci kaw kaw kaw janj yi montagne wala kon ak njabootan yi waaw nga xam ne day duusu ay duusam day duufu ba nga xamante ne nii day tiim garab yi tiim montagne yi tiim tiim lépp lu jub xam ndox moom bu yeggee foofu rek na ndox moom bu dee bu mën a tiim montagne loolu xëy na sax gis ko du yomb xanaa sa jamono yi yàlla noonu tuufaan waaye na bëri rek dem ba mën a tiim montagne garab bi gën a gudd montagne gën a gudd mën leen tiim mu sama faydu bi xam lépp lépp lépp fare na ko suuf sallal ilaahu ala haadi wa yi مسلم من عدد الحسباء في عدن ما يان يلا يلا جل يوم يلا كيرون تبيان ما يتكلم يجيون ما يترتي أكني كغرسس تي تي تي فوالو فامي يعني ترى لولا تكلم ويني غرسس نك نجابوتا نغرسس تي تبارك الله موتا يعني ترى ما بيجوا هاي دايرو مسا ال ال تماي بنو فاطمة سيدنا علي من أصحاب الكسار يعني يعني ترى علي ترى سيدنا علي سيدنا فاطمة سيدنا الحسن سيدنا الحسين يعني ترى أصحاب الكسار wala asxaabu ayatil mubahala ci suurat al imran wala mel noonu waaw asxaabu ayati tatahir ak ñuy bokk si ñoom yàlla na yàlla def salaatu si muyuntu ak ñooy ñoom musaliman musaliman si ñoom salma ko xam ne du jeex mukk bu bëri lay doon xar doon asba xasba ci lii mu xeer yi fi ànd nañ ci ci suuf na xeer yi toll ci suuf suuf mbell yi wala adam ci aljanna na xeer yi toll ci àjjana xeeri àjjana yi xam ne ay yaaxut la ay jamaa la amuñ lim yàlla rek moo xam seen ab lim nuñ toll moom yàlla bëri rek salaatu boo xam te nit ñi sax ñu ko bëggoon lim ñu xam nu mu toll yàlla na yàlla defal ko yonent bi ak waa këram allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim